ñu ngi ñaan suñu xalif Mouhamadou Makhtar mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem xalif généraux ah, tey dama am mbégte am contentement bu baax parce que démb dañ ko tàmbale si bisimillahi rahmaani rahim fas yéene ko tëj si alhamdulilahi rabil alamin bi ma wàccee dama kontaan ba gis lu rafet lii nga xamante ni suñu soxna yi ñoom ñoo ko def avant may ñëw si loolu maa ngi niiw le directeur Euh, de l'IMSEC euh, monsieur congan maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la wax nuyoo bi nga joxal ma ko sa personnel bi yépp jàllale ko ba si le conseil d'administration par le biais de la du de la présidente du conseil d'administration de l'IMSEC Dakar donc di nuyu également le représentant de réseau Siggil Jigéen donc di nuyu également la mairie à travers le coach Ali di nuyu pratiquement jigéen ñi nga xamante ni ñoo fi nekk participer ci formation bi euh, les agents euh, du projet de développement communautaire Seydina Issa Laye di nuyu ñëpp daal pour bañ a guddal comme ni ko doyen waxee parce que c'était pas prévu ñu def yenn cérémonie yu rëy yi mais dañuy wax rek euh, monsieur le directeur par ma voix au nom du conseil d'administration ñi ngi sant ñi ngi gërëm IMSEC parce que démb wax naa ko lors de la cérémonie nee naa leen euh, euh, la relation entre l'IMSEC et le projet de développement communautaire ça ne date pas d'aujourd'hui bien avant ñun ñuy juddu la kon am na fidélité mais am na confiance mais également am na ay résultats parce que ba si ñun dans le cadre de nos interventions dañuy liggéey sur des indicateurs de résultats mooy li ñuy waxtaanee lépp loo def si benn zone rek boo ko évaluer mu wax na ne en terme de résultat def na lii ak lii impacté na lii si population bi et li ngeen def nag fii Cambérène lu rëy la euh, xalif bi ngeen ko defal mairie bi ngeen ko defal chefferie bi ngeen ko defal mais toute la population cambérénoise ngeen ko defal parce que lii c'est pas facile en fait organiser des formation parce que sa tient le coup tey bu doon da nga jug personnellement en tant que femme nga ni da ngay dem jàngi ko di nga fay xaalis bu bëri Mais si aujourd'hui IMSEC à le pouvoir et la capacité de financer ces formation la donc sant leen gërëm leen war nañu et aujourd'hui li ñuy permettre tey ñu gën a mën a dëggal ni IMSEC am na taxawaay bu baax sur le plan national mooy résultat yi muy def parce que tey Cambérène n'a jamais été derrière si lépp lu mu mante dem demee gis nañ le projet de financement à hauteur de 200 millions bi ngeen fi def c'est pas donné à n'importe qui tey nit liggéey na ay année yu bëri te amul possibilité am financement boobu par le biais de votre leadership vous avez puis réussir li nga xamante ni lu ñu bëri réussirul la kon nag bu ma ñëwaatee si ñi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficiaires yi tey lii war ngeen gën a dëggal ni tey bépp microfinance boo leen nekkoon war ngeen fa génn à partir de maintenant dem rejoindre IMSEC et ñun su ñu jëlee le modèle des avec parce que ce qu'on cherche aujourd'hui c'est rendre autonome la femme en tant que telle parce que dañu gis ni dans le cadre de nos interventions yaay bi moo ëpp li muy taxaw ci wàllu aar ak ak yelleefu xale bi moo tax ñu ni tey lépp lu ñuy def rek nañ ko jaarale ci jigéen ah man de dama ko gëm man personnellement en tant que Abdou Aziz Fall nekk le président du conseil d'administration lépp looy def te boole woo si jigéen ñi jiital leen du dem donc kon ngeen ngeen ngeen ngeen gëm loolu bu baax wax ni nag lii nii formé wuñu leen pour que ngeen jël lijaasa yi denc ko ce qu'on cherche aujourd'hui mooy la vision du président de la république mooy tey képp koo xamante ni tey doomu aadama nga nga mën a demal sa bopp te IMSEC dafa rejoindre la politique bi nga xamante ni moom la président de la république teg lu ne nag jaar na fi mais tey lii nii plaisir la pour ñun li ngeen def nii tey bu ñu paree si lu nu mel ñun en tant que projet de développement dinañ leen accompagner pour que ñu mën a multiplier la formation pour mën a euh, jox ko yeneen yeneen jigéen e pare leen aussi pour rejoindre fi ngeen jógee ku si nekk dafa mu foo jóge du parce que yéen a dàq fi ngeen jógee du parce que yéen a fa ëpp xam-xam dañ leen choisir parmi temps de femmes au niveau de la commune donc li liñ leen jox comme xam-xam tasaare leen ko te yewen leen si aussi donc duma ma guddal monsieur le directeur vraiment maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm tout le staff vraiment euh, madame la président sama secrétaire général également donc ñi ngi koy féliciter parce que lii nii tey ñun ñëpp ko ñun ñëpp si waroon taxaw mais tey su ko IMSEC yombalee dañ naan jaajëf IMSEC gannaaw ba ma santee yàlla julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Imaamullah maa ngi nuyu Seydina Mouhamadou Makhtar di ko ziyaar ak képp kuy kilifa di chef de di xalif si réew mi chef Diène naa ngi jël nuyoo chefferie bi rek tekke sa loxo muy délégué de chef de village bi sanga yi fi nekk sama sanga yi nekk ci biir Aïta Sène Ami jël naa nuyo bi tekk seen loxo ngeen joxal ma ko axlulaahi sa famille axlulaahi bépp maa ngi leen di nuyu den ziar Alassane di jël nuyo municipalité di ko teg ci loxo Ali sama coach sama grand frère jël nuyoo bi jox la ko nga joxal ma ko maire maa ngi nuyu sama nattango sama présidente madame Koumba Mbodj di nuyu sunu gan tedd gii di Jibril Ndong réseau civil jigéen ñëw nag mujj nag ci samay kilifa ci samay xarit ñi nga xam ne ñoom ñoo ma sagal sargal sagal ma ci digg Cambérène muy DG Ousmane Thiongaan ak Moussa Ndiaye. président Abdou Aziz jël naa ni nuyoo bépp teg ko sa loxo nga joxal ma ko sama directeur général bu maa ngi leen di nuyu di nuyu présidente ACO di nuyu nag agence CSP bi yépp tey ñun ñoo fi toog Cambérène Guédiawaye CSP Géejawaay Baay Laay naa ngeen di nuyu di leen ziyaar di leen wax ni leen sant yàlla rek moo ñu war alhamdulilahi rabbil alamin laay wax ndaxte jullit day sant yàlla ak lu mën a xew waaye lii mbégte la surtout ñun waa Cambérène ñun dong nekk ñu fi tey ñu ñëw tànn ñu am ñaari fan yi yëpp ñu am kaak ñun yéen su leen joxewul woon dara sax ñun ñu def lépp ndaxte jaral ngeen ñu ko ndaxte lii ngeen ñu defal tey dafa mel ni tey da ngeen ñëw tey fekk àdduna bépp ngeen ñëw seppi ci Cambérène rek waaye lii ñu commencé yàlla mu doon suñu mujjub daje di wax nag présidente ako kontaan trop ci nekk bi nga nekk ak ñun ni nga sa formatrice yi ni ñu nekkee ak jigéen ñi ñu ngi leen leen jàngale yooyu yëpp ñu ngi koy suivre di leen kontaan nañ di la wax ni la macha allah mention spéciale yow nee nga yow loo am IMSEC moo la ko gënal waaye yow ñun xam nañ bu baax yow yaay kan ndaxte tey jii rek ñoom ñii ñu ngi waxtaan si yow waa Cambérène yi nga xam ni démb rek lañ la gis waaye miin nan la ndax ci samay wax chaque jour ma joxe exemple ci yow jërëjëf jërëjëfati maa ngi tëj nag di remercier nag directeur agence CSP yëpp ak commencé que si Mansour mi nga xam ni moom mooy seen chef d' agence équipe bi équipe bu yaru lan ñu neex a waxtaanal ñu neex a liggéeyal la tubaarkàlla macha allah man lépp lu ma def nee naa leen man maay seen yaay Fall lépp lu leen soxla yéen waa Cambérène waa IMSEC lépp lu leen soxla ci man yéen nii di présidente avec yi su leen ko soxlaa te nekkuma fi sax woo leen ma su ma ko mënulee dinaa boole kenn ka nga xam dina leen ko defal. di nuyu jigéen ñi nga xamante ni ay jàmbaar ngeen di nuyu jigéen ñi nga xamante ni ay gaynde ngeen démb ba léegi. yéen a ngi toog sonn leen taywu leen ngir sàkku xam-xam DG da ko daan wax nee na bu may jàppale jigéen laay jàppale ndax boo ko jàppale su amee day yóbbu këram bu yóbboo këram jox njabootam jox boroom këram kon bravo yàlla na yàlla fay leen bu loolu weesoo aussi may nuyu bala may dem ci directeur Moussa sama doom sama xarit macha allah di Mansour ndax bi muy laata ñëw fii dañoo bokk di liggéey ndakaar muy xale bu yaru xale bu dal xale bu am sutura xale bu mën a comprendre xale buy naxanteeg yow ba même bu fekkoon da nga amee jafe-jafe sax sa xel dina dellusiwaat kon Mansour jërëjëf te tey ba léegi ñu ngi continué waat di liggéey comme réseau bi ma yor aussi dafa tasaaroo ci biir ndakaaru yëpp ñu ngi lay sant la gërëm di sant ñi nga àndal ñëpp di liggéey mun ñu leen a lim ndax ku lim juum ah macha allah macha allah di nuyu aussi Moussa. sama directeur <laughs> macha allah di jàmbaar di xale bu baax xale bu ma bëgg xale bu yaru xale boo xam ne lépp loo xamante ni soxla naa DG bala ma yëgsi ci moom sax faj na ko du bëtam yi toog moo tax damaa xam li may wax ci moom xale bu yaru la bëggul daara lu ma naqari dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla yokku la ak équipe bi nga àndal yépp yàlla yokk leen parce que li may wax toujours rek teble bu jubee rek ca ka jiitu la te macha allah nag seen njiit nag noonu la mel muy DG macha allah yal na yàlla fal ko cat di nuyu sama présidente tey loolu laay wax <laughs> Fatou Bintou di ñaan yàlla rek yàlla saxal liggéey bi ndax euh, nit mën naa maye lu nekk nangu ko ba mu des xool ñaari fan yi ñu ngi nekk fii xamante wu ñu bu baax dinañ déggante nga sopp ma loo loo ma sopp la rek yàlla xam na ne sopp naa la lu ko raw ndax nag Cambérène gii dama fay am ay réseau am fi ay ndimbal jaboot ñu nekk sa biir panel lu rafet loo wax ci man wallahi azim musuma la ko maa ngi la koy doo wax tey bi coppati nañ ko ci sa panel dugal ko ci sama biir panel barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nag gisuma lu tax may wax loo xamante ni góomu ko na man ku ma faale ma la ku ma faale wut faalewu ma kon nag kenn mënu la fay waaye nag noonu ngay mën a doxale parce que fi nga nekk la ak fi nga yaroo ak fi nga màggee donc noonu rek ngay mën a doxee ndax fii nag dafa nekk foo xamante ni ku fi nekk rek jikko bu rafet bu sell bu diine ak lislaam moom ngay mën a am macha allah. di sant bu baax sant gi na yàgg Fall doo Fall macha allah ëmb yaru dal am sutura ndax nag formation yi nga xamante ni moom lañuy def ngay président nee naa présidente yu bari xamuñu dara ci formation ndax li ñuy jaay dayo moo tax bu ñuy former duñ ànd ci formation yi di former pour bu ëllëgee ñu mën a former dañ naan nañ former samay élèves élèves yi pour ñoom ñooy ñu topp seen ginnaaw waaye ku jiitu jiituwul ñu ko jiite ko jiital parce que bu fekkee da ngaa jiite mbooloo te mbooloo ma nga jiite gestoo gisoo kenn ci ginnaaw kon jiitewoo kenn parce que ñu toogee ñëwuñu doo jiite kenn kon dara boo ciy nekk da nga cee am fulla am ca fayda soobu ci nekk ci biir ànd liggéey mënoon ngaa dis gann nag ne man du ma ñëw di yëkkati di fóot ak a bale ak di raxas di teg di bokk ci formation mais kenn mënu laa fay di fay aussi di nuyu aussi sama naataangoo bee ci ginnaaw nga xamante ne ñoo bokk Dalifort te heure bu ñu wootee rek wax dëgg yàlla mu ngi ñëw toog ah di nuyu nag sama secrétaire macha allah <laughs> ah Barak waa Barak ba ca waalo maa ngi lay nuyu Mbodj wax dëgg yàlla yaay sunu secrétaire nuyoo bi nag maa ngi jégalu dama waroon a jiitu. ci ki nga xamante ni mooy suñu présidente nationale parce que ñun réseau lañ yor DG dañoo wutal réseau réseau boo xamante ni mooy réseau jigéen di réseau national nag ñun namuñu politique namuñu président namuñu kenn ndax lim ñu jàngal état la dama ne lim ñu jàngal gouvernement la état la man damay wax ne IMSEC état la barke yonent bi sallallahu alayhi wa ndax nag heure boo gestoo xool ci seen kees yi nga xam ne yéen a ngi ci seen quartier lu mu gën tuuti gën tuuti 4 millions ma nga ca ci organisation boo xamante ni DG organisé na ko ci financement waa kan na fa tab banque donc wala mutuelle donc kaay ma lebal la rek lu ci yoonu jàngale lu ci yoonu formé ah kon kii bëgg na nit ñi gën a dem ci kanam waaye bëggul ñii nit di leb di dellu bari na banque yoo xam ne koo ci wax danaan du ma dem ndax kii du dimbali jaboot waaye day la jël jaboot parce que heure boo demee leb pour nga fay sax problème lay doon te bu yàggee dañuy ñëw huissier ñëw taxaw bu bu ñuy ubbi buy ñëw di la di la di la financer si ah dina ñëw xool sab armoire dinañ xool sab lal calculer la xool la nga am ca néeg ya xool la nga am ca kër ya ba mu ne kocc koccaaral ba tiital la ba sa borom kër sax daan na la bàyyil boobu financement waaye ñun loolu amul ci IMSEC connaissance de cause nag laay wax parce que depuis damaa yor mutuel bu nekk jaar naa amul mutuelle boo xamante ne du ñëw fëgg si ma xool si ma parce que nag ndegam rek léegi da yor rek juróom-ñaar nit sax mutuelle yi daw sa ginnaaw waxtuma laat nag nga yor plus de 100000 femmes au niveau national internet moo tax man la yow état nga ndax man mii dong su ma yoree plus de cent 100000 femmes nga am yow ñoo yor kii am ñi mu yor ña ca Dakar am ñi yor national ku nekk Casamance Fuuta ku nekk am li mu yor lépp nekk sa ginnaaw di réseau su la neexoon baj gi baj gi bu la neexoon tëb bu la neexoon am neneen noo doxe nag wala nga taxaw nag daal di fëgg sa dënn na dama am lu may laaj waaye rek dañoo wax ne dal dañ koo soxla ci ndox waaye ci nit la gëne ndax gis nga soo dalee rek yàlla yëkkati la ba ca kaw boo yëkkatee yow sa bopp ci kaw yàlla teg la ci suuf te loolu lañ gis ci yow moo tax jigéen ñi bëgg la fonk la respecté la parce que xoolal ñu dara tiituñu dara xoolal kenn jaaxalatuñu ndax yow wallahi al azim ñoo ngi dawal suñuy 4x4 yow yaa tax waxuma lu la neex DG ñu ngi am suñuy kër gannaaw yàlla ak yonent bi yow yaa tax barki dem rek laa koy wax dañoo organisé ba am suñuy terrain te yow yaa ñu taxal yaa ñu defal lu mel noonu wallahi al azim suñu doom yi nga xamante ni inscription da daan jot ñu am problème amatuñu benn problème pour suñu doom yi marché yii nga xamante ni dañ fa daan dem ñu baal ma pël fuuta yi yor seeni xaalis jonkan di xaar bala ngaa am dara ñu daan na la 10 000 ngoog nga jaay boo wàccee teg ci junni muy 15 000 francs dindi nga ko fa ndax yaa ngi bàyyi say élément dugg ci biir marché bi di bëccëg ndax bëgg lu leen neex te su la neexoon doo ko def xam nga fooy tooga sa élément yi dañuy toog ci banque bi di xaar lan la ñuy xaar ñu ñëw nee naa bërëm bi rek laa koy expliqué tax wallahi dëgg la am na benn kii boo xam ne du ko tudd keroog ba ma fay dem ak sama réseau ñaari kaar laa def ñu jonkan ca buntu ba ñuy ñuy ubbi compte di toog di xaar di ubbi ba cinq heures pour am suñu financement lañ fa jóge ak 6 heures te 8 heures lañ fa demee yebaat kaar dellu dem ñibbi waaye déedéet IMSEC amul loolu. toogal ci sa biir kër woo sa njaboot nu fekk la ci biir kër ga koñ ba nan toog ca kër ga bu kenn génn dem fenn. ñii taali dinañ taali xale yi ñëw bàyyi tëj seen banque ñëw di ubbi seen compte ba compte bi jeex ñu pare ñu dellu dem ñibbi yow nga dellu du gàcc sa biir kër ñu ne déet na waay légalisation jot amul benn banque bu wóolu kenn te bu groupement bi taxee dun ne eh, am yaay diw demal légaliser yaay diw groupe de dix ba dix yamat nga légaliser ji boo moytul boo demee ca gendarme bi danaa bu dix yëpp ñëwul duma la jox bu dee insecte day buub lépp daal di jox kenn ne ko dama légaliser ci ñëw confiance fu mu am amul ci benn banque boo légalisé ba ñëw ñu la dellul toog tuuti bu subaa nga ñëwaat bu subaa nga ñëwaat yow seen maletu xaalis fekk la ci biir kër ga jox la ay million nga dem liggéey ji laajowul caution kenn sanalul yàlla yàggal sa sutura yàggal im si kaw lay jëm bul tiit bul ragal xoolal maa la ko wax fii te la ko wax fii ci ëtt bii nga xamante ni ci dëkk bii nga xamante ni dëkku maam li lu laaj ci kaw la jëm ñi si des ci ginnaaw la ñuy dellu parce que jigéen ku ko yërëm jabar ku ko yërëm yàlla ànd ak yow kon kenn mënu laa fay ñun li ñu dund ci IMSEC ak li ñu IMSEC jox dama ne maire yaa ngi fii nañ la sant nañ la gërëm maire yi yàgg nañ fii mënuñoo am financement sax cinquante millions fu ñu koy jële amuñu ko parce que bu ñu amee seen budget yoo xamante ne dañ ko war a jël di ko jox cinquante millions di ko tas di ko jox jigéen ñi am na feneen fu ñu koy def fudul foofu waaye tey permettre ngeen ñu mën am deux cent millions député yaa ngi li tax bu ñuy politique ñu for mbagg ba ñëpp di leen wut si parce que mbooloo lu ñu bëgg te mbooloo mi ñun ñoo koy dajale ba mu bari nga jox ñu xaas bari ñu financé leen ñu yokk garaat man madame la maire la bu ma ko nekkee yaa ma ko def ak keneen ak keneen ak keneen kon kenn mënu laa fay mais wëlbatu nag ci sama formatrice yi ñàkk ci ñaan yi ndax li tax depuis 2009 ñu ànd ngay kilifa di professionnel di mag nekk ba Saint-Louis bokk ndimbal jabar di président ndimbal jabar dama naan la allo dama bëgg nga dem place sangam formé loo jàpp nga bàyyi ko nga ñëw formé xam nga ne saabu bii. daggoo kook machine daggoo ko leen kook dara defar ko ba mu rafet ku ko gis def ne ca bitig ba la jóge boo aayul mënuloo ko macha allah doo ko mën mais xol mooy former nit bëgg mooy jàppale doomi aadama ànd ak pédagogique nag parce que man waxuma ko ñoom ñoo ko wax waxuma ko de ñoom ñoo ne li ngeen leen formé fii tey li ngeen leen formé bi tamit nag damaa def ne ab laayeen du wax lu mu xamut ndax heure bu taxawee ci laay laay lay taxaw mosuñu koo gis fenn li ngeen leen defal yéen a ko wax de kon jeena mu ngi noonu waaw kon dama leen di sant di leen gërëm muy teneng depuis 2009 amul formation nag bu dul formation jinne boo xamante ne rek mi ngi am fii ci Sénégal te ndimbal jaboot amu ko waaye ñun ndimbal jaboot dañ koo teg fee ndax réseau bi ñu bokk di nuyu nag bu baax a baax a baax a baax suñu présidente Adja Boy Mbeng di ci teg suñu présidente macha allah Ndumbe te secret topp ci waaye man nag trésorière la maa ngi ca fële ca Dalifort ci ci ci ci fii nga xamante ni mooy réseau bi moo tax tey du wax wax wax réseau bi rek laay wax kon DG bu fekkee da ngaa jël loolu nga ne ci biir réseau bi dama bëgg ñi ci mën wëlbatiku ma génn sama xaalis ñu jënd suñu produit ngeen wër di jàngal jigéen ñi dañ ciy sawar ndax ni ñu mel yaa tax ñu mel di wax ni Ousmane Thiongaan yow yaa ñu may jën wan ñu ni ñuy nappe faaw ñu gis nga fii bu fi jigéen ñi doon toog ba guddi ba di fi fanaan sax sunu borom kër yi duñu ñu woo ndax yow la yaa ñu def leader yaa ñu def grande dame ba fu ñu toog ñu naw ñu waññi ay millions di ko teg ci suñu loxo kenn ku ne fa nga ne fekk nañ la faak ay millions commencé 10 millions ba 15 millions ba 50 million ba 100 millions dig la 200 millions te boo ñu ko waxee dañ koy gëm ndax ba nga ñu ko waxee def nga ko ak sa directeur de caisse ak suñu chef d'agence directeur yaa ñàkk ki yaa bëgg jigéen ñi nag di ko wax te muy lu dëggu ci yow fu ñu la fekk rek nga wax ñu ko yéenay sama xarit te loolu lu ñu xam la ndax kenn ku nekk wër na la ne fa nga nekkoon rek paase nga ko foo nekk naw lañ la respecté nañ la ndax IMSEC IMSEC nag mooy mooy institution boo xam ni jigéen ñi rek xam nañ ko jeunes yi bokk nañ ci ndax laal nañ ba ci suñu doom yi ndax ku ni jigéen rek ni doom ja te da ngeen koo bañ da ngeen ni jigéen ñi jeunes yi kon loolu yëpp yaa ngi ci kon dañ lay sant di la gërëm di gërëm waa réseau des femmes ndumbe jeen suñu présidente réseau des femmes ñu ngi koy gërëm di ko sant fa jóge màkk xam naa nopp loogul moo tax suñu présidente réseau CSP ngi ni toog muy Kumba Mbooj ñu ngi koy nuyu di wax ne Adja Ako yow loo ma wax rek njaay ci yow la ne yow mii yaa oyof yow yaa waroon a diis te diisoo yow ba ma lay xam di la contacter xamu ne woon ni sax dinañ bokk nekk IMSEC ma dégg sa tur woo la téléphone di ñëw sa kër nga ni ma maa ngi Petit Mbao far yàlla def wéroo gisee wuñu ba ñu ñëw réseau des femmes tase fa ma song la nga song ma ma gis muy jikko bu oyof ci yow man dama lay woo di la laaj lu nekk parce que loolu la kenn ku nekk loo xamul sax bu ko sa morom xawee moom ko war nga koo laaj la lay yokk waaye du la wàññi lii multiplication la ndax ñoo ngi jóge géeja waaye ñëw Cambérène xamante feek ñoo xam ne xamantewuñu wuñu woon ak ñoom pese yaa ñu ngi lay nuyu yaa ñu dalal tey ci yow laa war a njëkke sax di la wax jërëjëf waaye suñu formatrice yii kontaan nañu kontaan ci yéen ba fu kontaan yem jàngal ngeen ñu may ngeen ñu jàmm li ngeen ñu jàngal dugg na ci suñu bopp yi ñun nag bu ñu yeggee dinañ wëlbatikuwaat jàngalaat suñuy nit parce que njàng mi nag loolu lay jariñ dañ ñoo woo def lu bari def lu jafe financer la former la accompagner la renforcement capacité la soo ñëwee da ngay dellu ci sa mbooloo jàngal sa mbooloo ñun loolu la ñuy jàng ci yow rëy ñu pour laaj la suñu sa xalaat ndax oyof nga pour wax ñu sa xalaat ba tax na du ñu rëy ba di la laaj suñu xalaat kon dañ sant di la gërëm di di gërëm suñu formatrice yi teneen maire bi oyof lool luñ fi jàng macha allah bu ñu leen laajee di ngeen ñu waxaat bu ñu leen njàngum mag la yenn saa ñu ne leen nangam ak nangam ngeen delluwaat ci wax ñu ko te bu leen neexoon du ngeen ko def waaye macha allah lépp luñ fi jàng rek yàlla nañ ko buñ demee yàlla nañ ko appliquer te ñëpp yàlla nañ ko mokkal te yàlla nañ ko liggéeyee te mu am réussite. IMSEC nag mënuñu ko fay. bu buñ ci dee wax duñ fi duñ ci noppalu fii ba suba ndax mën nañ ciy xëy suba ba ngoon jot te duñu pare ndax moo ko def ñu gis gis nga fii buñ fi doon fanaan kenn sa jëkkër du la ci woo foo nekkoon nga ne ko damay dem IMSEC ma ne damaa xaw a feebar bu dem mu ne la eh demal wujji congaankat bu la wooyee demal wujji Moussa Ndiaye bu la wooyee demal wujji man de man dong laa aw ma wujji ma kenn waaye sama borom kër maa ngi moom 16 ak 16 rek ñu toog waaye bu ma IMSEC wooyee danaa ma dawal wuy ba heure boo fi jóge duma duma laajte soxna ak Astou nag mënuma leen a bañ a tudd xale yii ñooñu gunge guddeeg bëccëg suba ngoon ñi ngi ci ligne bi lu ñu def ñi ngi ñu koy waneel ñi ngi def marketing di def communication te looloo lu am solo li ñu liggéey ñi ngi ñu koy fésalal ba pare ñi ngi ñu jàllaleel suñu message di leen sant di leen gërëm muy xale yi yaru xale yu oyof xale yu neex a liggéeyal macha allah yal na yàlla jàppale. maa ngi leen di nuyu ki ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfalu bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne jigéen ñu jàmbaar yi jigéen ñu fakk tëdd yi jàmbaaru gaynde yi ci biir gaynde yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di gërëm tam suñu présidente bi nga xamante ne moo ñu accueillir fii ci gox gi ñu ngi lay gërëm sa dalal rafet na kontaan nañ bu baax a baax a baax. di gërëm aussi ñi nga xamante ne ñoo leen may formation bi muy waa INSEC amuñu seen pay yal na leen yàlla fay yéen élèves yi ngeen doon yéen élèves yi doon jàng it liñ leen jàngal yal na barke yal na law ba ngeen am fii unité di gërëm aussi le directeur de l'INSEC monsieur Thiongane maa ngi lay gërëm di la sant ci jàppale bi ngay jàppale jigéen ñi di beral nuyoo ki nga xamante ne bu ñu taxawee fii tey gannaaw yàlla ak yonentam bu tëdd bi mooy présidente Ako Ndiaye ma bëgg ngeen tàccul ma ko tàcc yu bëree bëri bëri parce que jàppale na jigéen ñi te ku jàppale jigéen ñi jàppale nga ndaw yi ba man mii di wax ak yéen depuis 2009 laay ànd ak moom te rëccuwuma li nga xamante ne moom laa duggee ci moom parce que li may def yëpp gannaaw yàlla ak yonent bi moom la mënuma woon dara xaw ma woon dara lu dul lekk ba suur dem tëdd nelaw waaye ba ma ñëwee ci keppaaram ci laa xam luy développement ci laa xam ci laa am it yokkute kon nag jërëjëf Njaay jërëjëf jëf léegi mu am loo xamante ne joxoon nañu ko pour ñu defaral leen ko muy wàllu saabu eau ak cuub bu ñuy woo sax saabu kese lañu waxoon waaye bu ñu ñëwee moom mu ne ñu INSEC amul loo xamante ne jaraluma ko loo gis rek jaral na ma lu ëpp loolu bu ma joxee benn man mën naa def ñaar fukk comme benn la ma jox duma ko defaral benn danaa ci dolli eau de javel ci dolli cuub te nu mu ko waxee noonu la ko defee moom it fu ñu mantiwoo bu ma fekkee ma feebar sax damay raam wuti ko parce que macha allah kenn mënu ko fay di gërëm aussi astu ak soxna maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ñuy seenu équipe bu dynamique équipe bu yaru macha allah tubaar fakkal la amuñu seen pay jërë ngeen jëf léegi li nga xamante ne moom lañ fi liggéey tey monsieur le directeur mooy lii eau la waaye ñaari façon lañu defar bii eau javel bu zone bi la seen jigéen ñi toog ñoo ko defar lii saabu la saabu fuddën mu ngi ci moo nekk nii saabu baar bi am na curcuma saabu bu weex bi saabu fóot la lépp lay fóot mën na fóot mën na sangu am na aussi saabu karot euh, moo nekk bu xaw a weex bi lii cuub yi la mooy li nga xamante ne jigéen itam ñoo ko def dans deux jours lii aussi saabu la saabu bi am na saabu fuddal en même temps saabu carotte mais lii tax mu verte ni dañ ci dolli tuuti colorant moo tax mu nekk ni nekk deux tons bi léegi lii aussi eau javel la waaye eau de javel bu weex bi la bu weex bi bii nga xamante ne boo ko kenn mënu ko ràññee ak yeneen eau de javel yi te vraiment jigéen ñi ñoom ñoo ko liggéey grâce à saabu bi saabu tamaate la tamaate lokoti waa mooy saabu bi tamaate lokoti lañ ko defaree kon nag tamaate lokoti yematul ci lekk kese fuddan aussi mu ngi fi kii mooy carotte bi mais carotte pure bi karoot bi nga xamante ne amul mélange amul dara karoot simple karoot bi la bii tam karoot la waaye dañ ci mélanger ak tuuti colorant pour kiyu karoot bi génn pour ñu won jigéen ñi ne lii mën nañ leen ko jaay ñu ne saabu karoot la ñu ne déedéet du saabu karoot parce que saabu carotte bi dafa war a rose moo tax ñu defar yii mooy loolu aha lii daal mooy li nga xamante ne tey moom lañu suñu présidente bi indiloon grâce à yéen jërë ngeen jëf ci kaw ci kanam jaaraama INSEC jërëjëf. Euh, man nag sama wax du bari dafa guddi waaw waaye nag kilifa yi fi nekk bàyyi seen yitte yëpp ñëw euh, il faut ñu sant leen gërëm leen boo nuyoo xalif bi nuyoo chef de quartier yi. nuyu waa conseil municipal bi fi nekk parce que ñoom ñoo fi nekkal maire parce que maire ñëw na fi démb ñu ngi koy sant di gërëm ndax réhaussé na de sa présence ouverture formation bi nga xam jigéenu IMSEC lañ koy defal au niveau de l' agence. Euh, nuyu bu baax euh, présidente réseau des femmes de IMSEC Dakar Adja Ndoumbe ñëwul waaye nag nekkal nañ fi te ñi ko fi nekkal aussi macha allah macha allah secrétaire général ngi nuy toog. Euh, présidente mu ngi ni lay toog ci ginnaaw moom it ci bureau bi la nekk Adja Ako aussi moom passe partout la moom foo laal mu Ako <laughs> moom laay tuddee couteau suisse ato <laughs> couteau suisse mi ngi fépp daal macha allah di nuyu coach di nuyu aussi euh, Aziz mi nga xam ni moom moo ñu dalal ànd nag ak Moussa Ndiaye jëf jërëjëf Moussa jëf euh, sama sama rak sama xarit sikkim baa ngi gën a gudd mais ba tey rek euh, Mansour Mansour ak tout son personnel bi nekk fële ñoom jéeme ñëpp jéeme moom dafa mel ni sama waay ah histoire kat la nag xamoo kon jéeme <laughs> jéeme histoire rek man nag président président conseil d'administration man li ma jaaxal mooy jigéen ñi ko jël rek ne nañu def weer wu nekk ñu def fii formation loo leen ñamal man nag jaaxal na ma trop <laughs> teraanga moom Cambérène la teral nit Cambérène la loolu moom loolu moom lu fi yàgg la te li tax ma am mbégte Aziz li tax ma am mbégte mooy IMSEC lépp laa la wax de démb ak bërki dem lépp fii la démarré IMSEC la fi lépp démarré fii la euh, yal na ko yàlla euh, xare àjjana ci gën sori Chérif Ousseynou Laye wéet nañu mu ne ma imsek beneen la ñuy waxati de mais yéen ci kaw rek senegal fépp nañ leen dégg te boobu ako boobu ako ndakaar ñetti gisee rek lañ fi am ñett xaw ma juróom benn mu ne ñu xoola national da ngay dem ma ne ah sëñ wax mooy lan waaye nag am na loo xam ne man dama am pas-pas boo xam ni boo wéeteeg yenn kilifa yi ñu fasu wax la man dootuma dellu ginnaaw man nag gëm-gëm boobu laa am boo xëy na ci famille yi la mais man noonu laa mel du may dem damay dem rek ñu nag dañu yàgg ñun waa IMSEC dañu gëm ni boo bëggee jàppalee dëkk ba bëgg a jàkkale famille góor ñi baax nañ de parce kër moom boo koy wax boroom kër ngay wax waaye jigéen ñi ñoo yore dëkk bi. Aziz wax na ko léegi ay étude yu bari yoo xam ne xam-xam yu bari boroom xam-xam yu bari gëstu nañ ci bind nañ ko ako yoon wi ngeen jàpp yoon woowu moo baax ako couteau suisse général ako yoon wi ngeen jàpp mooy yoon wi baax boo demee waa Kelkom la ñuy liggéey ci géejawaay ñëpp ci teg seen bët le maire bi mu ko gisee dafa tiit keroog bi ñëwee foofu Adja ki dem loon séddale kër yi man mayeguma ci parcelle mais loolu yëpp boo ko gisee moo lay wan ni ñun li ñu gëm yoon woowu mooy yoon wi nga xam ni xam nga wax nga ko léegi ne le président de la république ñoom dama ne leen li ngeen di xalaat ako dama leen yéen li ngeen xalaat di ci def ay séminaire li ci dugg ak di génn ñun waa IMSEC commencé nañ ko bu yàgg ndax dañu gëm ni boo bëggee développement dëkk da ngay jàppale jigéen te boo jàppale jigéen bul yem ci financer ko kese financement kese baax na parce que aussi faut tourner financement boo yorul xaalis fan nga jëm boo yorul moyen financier fan nga jëm coach mi ngi ne li xam na li may wax mais boo ci boolewul accompagnement du dem boo ci boolewul formation du dem ñi nii nag dañ naan formation def ko ay slogan nag am na sax ñuy wax trois f ñuy wax nangam ak nàngam mais ci fo ci ci slogan la yem ñun dañ ne jigéen ñi nañ leen jox xaalis ñu liggéey waaye nañ leen jàppale gunge leen loolu la ñuy def au niveau national ñi ngi sant bu baax Moussa Ndiaye ak équipe am yëpp loolu ñu nga xam dañ koy def au niveau national moom kenn jiitu woo ci moo tax may wax ni man bu ngeen may tàccu jaru ko ñii ñoo yore liggéey bi ñoom Moussa Moussa et ses chefs d'agence réseau des femmes de Dakar la présidente du conseil d'administration ngi nii équipe bu baax ngeen yore wóor na ma ni ci kanam tuuti fi uh, soxna na bañ a filmer IMSEC Dakar dana delluwaat place bi mu nekkoon li tax ma nekk bu ma filme damay bañ waa Mbour mere ma damay bañ yeneen région yi mere ma ndax li ñu gis mooy agence bi waa Géejawaay Géejawaay ci boppam boo jëlee Cambérène jël toute l'agence de CSP ñooñu ñoo sant IMSEC donc bu ñu fi dellu si waatee tout le temps dañuy am mbégte te lu ñu fi def comme expérience dañ koy dupliquer fépp waxtaan naa ci coach léegi. def leen seen xel ni ñun ñi ngi xalaat li ngeen jot a def fii te nan la ñuy fexe ba dupliquer ko ci leneen surtout avec yi fi nekk seen modèle avec bi seen modèle avec bi. nan la ñuy fexe ba ni ñu liggéey ak avec yi fii nan la ñuy liggéey ak avec yi au niveau national loolu aussi chemin la Aziz parce que avec yi IMSEC naturellement dañu am li ñuy wax convergence convergence boobu ñu am nag war na mën a feeñ ba jur loo xam ni dañ koy mën dégg partout au niveau national ñun nag IMSEC li ñuy wax mooy formatrice jërëjëf ndax lii moom yéen ñaari formatrice yi borom Ndar tàkkusaanu ndar a ngi noonu toog tàkkusaanu ndar ci Cambérène moom fii rek nga koy gisee <laughs> waa Fuuta la lii ngeen di def muy formation dinañ leen jox léegi ay attestation attestation nag taf ko ci miir bi baax na trop ku ñëw nga ne ko am naa xam-xam de am naa financement waaye kayit baa ngi nii loolu baax na trop mais lii lii bu leen Mansour joxee financement xool leen nan ngeen ni nan ngeen ci liggéeyee nan ngeen ci tedde parce que lii nit mën na ci tedd nit li muy tedde bu mu ko xeeb benn saabu bii mën nga ci tedd benn saabu bii façon gis naa fi yu nekk gis naa fi ay saabu tamaate man tomate xaw moon loolu yëpp mën na ci coordonnatrice yoo xam ay feem yu bees na ay tomate gis naa fi ay carottes yu weex ak yu xonq man carotte sax xonq façon yu nekk ay fuddën ay yu nekk gis nañ ko fii yii nag innovation la innovation la ku dem nag léegi yow yaay xool nag léegi financement boo jotee léegi nan laay fexe ba gën a dupliquer lii pour commencer di jaay commercialisation mooy beneen phase bi jot naa formation jot naa financement chaîne de valeur bi bul ko dagg dangay ngay di commercialiser da ngay commercialiser ñun nag fi ñu war a gën a xalaat mooy léegi loolu beneen perspective la naa ci waxtaan a ñoom Moussa ak bi mooy ñun ñi ngi ci yoon woo xam ni nee nañ financement day am impact social parce que financement boo ci génnee social financé too yeneen banque yaag banque yëpp yéen a yem ñun nag dañu gëm ni financement yi ñu def dafa war a am social ñun incha allah danañ continuer danañ xool aussi ak présidente lépp loo xam fii ci Cambérène la ñu wax la ko wax nañ ko maire bi ñun waa IMSEC nan nañ ci dugale suñu loxo parce que aussi loolu dafa am solo ñun gox bu ñuy intervenir lépp loo xam ne xaj na xam na ca gox ba ñu xool lan lañ ci mën a def comme ni ñu war a defee ci jigéen ñi comme noonu lañu man defe ci waxtaan boo xam ne dañ koy waxtaan ak yéen kilifa yi ñu waxtaan ci mais la présidence ñu xool nan lay IMSEC di dugalee loxoom ci activités yoo xam ni loolu la ñuy wax ay activités communautaire donc président donc président dégg nga ko ñun dañuy intervenir dans des activités communautaire donc yooyu yëpp mën nañ ci waxtaan incha allah formation yi nag yii nag am na ñu dem à l'échelle boo demee ni ñëpp dañuy roy dañuy wut ay royukaay souvent loolu laay wax jigéen ñi nan leen niveau yi ngeen toll bariwul yamu leen am na ci yéen ñoo xam ni xam-xamu neen lañu bu ñu ñëwee jaxasoo ak oyef waaye ñëpp a ngi leen soxla ci senegal ñu indi leen leen ako ci la bokk sama jigéen. Adja Fadlo Fall ci la bokk ñoo ñëpp mais boo gisee dañuy làqatu nekk si biir ñin ñi mais du ma jëlee ko par exemple comme ni ma mënee waxee ci ñeneen Adja Kumba ni ma mënee waxee ci ñëpp dañu nekk ay royukaay yoo xam ni comme ni kii bi waxee naan même bu ma feebaree bu ma weeree ma topp si ginnaawam ku ci bëgg arriver arrivé bëgg demal sa bopp créer sa réseau bopp réseau nationale international da ngay xool ñoom fi ñu jaar elles son parties de rien du tout ako daye du sa wax sax loolu ci zéro ci zéro ba tey ñëpp ko xam Sénégal bërki dem man dëkk bi ñu àndoon sax man fàtt naa turu dëkk ba ko nu mu tuddee ti sax jokkul man dama defoon jokkul fii la yem Tëngéej ah ah kàccal xam nga kàccal dëkk yooyu ñu dem ay junni junni jigéen ñoo toog di ñu xaar jóge ci lu tolloog ay lu mat une trentaine de commune ñëw toog di ñu xaar ñoom ñëpp ñu naan ako moo leen ako moo leen booleeg ak IMSEC ako moo leen accompagner ci formation comme yéen li mu leen accompagner loolu loolu référence la boo amee référence nag da ciy jàng comme ni nga wax léegi Adja loolu moo baax man ako yenn saa yi naa gis ay jigéen ñu ñëw seet si ma naa nga ma ma neen dem leen ako ako des fois nga gis ñu ñëw koŋ-koŋ man maa leen diriger parce que xam-xam dañ koy gëstu dañ koy dañ koy dañ koy comme ni ñu def ci sëriñ yi xam nga li nga wax léegi neex na sama jëkkër maa koy tegal ataaya ah ñëpp bëgg loolu de xam nga Mansour amul yooyu moom talu ko sax mi ngi daw rek <laughs> daw di financement rek loolu tax ñu ne leen yéen financement bi ngeen jot lu baax la yéen seen digganteeg IMSEC parce que banque yi loolu mooy différence IMSEC ak yeneen banques yi yeneen banque yi dañ ne li ñu seq ak yéen mooy financement heure fay bu jotee jox ñu suñu xaalis foo ko mënti lebe foo ko mënti jaar fay ñu suñu xaalis balaa cee jot da ngay sonn boo jotee ñu ne la fay ñu suñu xaalis après pare nañ ci yow ñu nag ñu ne loolu. du option wu IMSEC option wu IMSEC mooy war nañ la jàppale financement oyofal ko nag booy dugg dafa war a oyof li ngay jot intérêt bi bu mu diis parce que bu diisee bu diisee dañuy nekk dañuy nekk dañuy nekk en dehors de notre mission parce que social bi la defaale financement war na war war na oyof booy dugg si boo koy fay mu oyof et puis ñu faciliter la li nga wax mooy déplacement Sénégal dakaar gi ñu nekk ku la teggil déplacement ak télé bi ni mu mel ak xat-xat yi ni mu mel loolu rek loolu rek waroon na tax war a war waroon mooy luy différence IMSEC ak ñeneen ñi teg la déplacement yi xale yi di ñëw Mansour ñëw fii ànd ak équipe am Moussa ñëw nekk seen ginnaaw ñu ñëw fekk la fa nga nekk financé heure remboursement bu jotee ñu fekk la fa nga nekk jël remboursement dootoo place doo jóge fa ngay bouger fa ngay liggéeyee du la yàqal sa journée. doo toog tout une journée di wër loolu nag la ñu gëm loolu la ñu continuer formation yi ñu def nii def nañ ko fu nekk dañ koy élargir dans la à l'ensemble des agences au niveau national commencé nañu ñu koy élargir à l'agence des agences bu ñu paree nag def évaluation globale lan moo lan la nan lañ ko war a améliorer donc présidente ñi ngi ñaan président IMSEC Dakar Ndoumbé Adja Ndoumbé ak ñi ko fi nekkal ñëpp présidente Boy Mbeng au niveau national ñu santal ñu ñoom ñëpp Euh, soxna ak astu président yi fi nekk yëpp defe naa ne waru war ngeen xam ni man amuñ benn njariñ ci affaire bi ñaar ñii rek la ñooy def animation bi ñoo ci liggéey ñoo ci dem ba jeex actuellement niruwuñu nit fi la ñuy yendu te bërki démb la ñu jóge fan fan ngeen jóge démb bërki démb semaine passée ñi ngi woon ñooro ñi ngi woon Diourbel ñu ngi wër rek au niveau national dafa metti te yu demee nii rek la ñu ngi woon Nioro ñu ngi woon Kaolack ñu woon fu nekk loolu mooy loolu lañ leen sant moo tax ñoom amuñu leen seen fay danañ leen ñaanal ñaanal leen nag ñaan bu am xaas ana ana ana soxna si ñaanal leen ñaan yu am saax ñu am ñu am nag loolu ci la bokk te te ñu bañ a te ñu bañ teggi seen tànk nag bu ñu amee alaaji parce que ñaan bu ñaan bu kiyee soxna la. donc loolu rek la ñëwoon dinañ ko ci wax en tout cas kontaan nañ bu baax doyen xaw ma doyen la ñu xam xaw ma Boy Sène <laughs> moom sama xarit la bu yàgg yàgg nañ trop maam xalifa yàgg nañ torop parce que moom bokk na ci ñi tabax IMSEC fii bokk na ci ñi tabax IMSEC fii présidente wax bi gudd na bu ma continuer nag day gën a gudd alors que fii dafa lëndam li ma bëgg daal mooy. Euh, mooy nañu dem ba nañu dem ba te loolu mën nañ jël engagement boobu ako ko nañu dem ba yéen seen biir am ñu am seen usine de traite seen unité ndax nit day am ambition def naa naa démarrer fii mais man unité laa jëm li ak am dama ko bëgg am seen unité am seen réseau loolu mooy li baax parce nga démarrer nag ay financement cinquante mille cent mille mais demal bay jël sa nangam yow individuellement nga di créer sa unité di liggéey parce que lii la xam-xam boo ko amee daf la war a jariñ waaye def naa formation deux jours def naa formation bu intense bu metti ba am lii ba am xam-xam nan la ñuy defaree yëpp après dem teg ko jël sama jël sama attestation taf ko ñëw mënal gis nga sama formation bi loolu aussi dañ ciy bàyyi xel. atestation yu baax la seen doom kontaan ci xam ne am ngeen attestation mais li ëpp solo mooy nan nga ñu am naa yaakaar ni dinaa ngeen yàlla na ngeen delluwaat géejuwaay ak jàmm ak salaam yàlla na ngeen delluwaat euh, Cambérène bu baax Cambérène moom yéen a ngi fi ba tey